aousubillahi min asheytaani irrajim bismillahi irahmaani irahim alhamdulilahi rabilalamin allahuma salli ala seydina muhammadin wasallim ñoo ngi santat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santat Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim bu baax di ziyaar waa soppe yi ñi nga xam ni ñooy topp Saxum Touba point net di ziar kilifa gi bu baax sëñ Moustapha Diakhaté xaadimul xaddim di ko ñaanal tawféex sëriñ Tuubaa ci liggéey bi nga xam ni mu ngi koy def di ziar ak a jaajëfal bu baax sëñ Mor ci émission bi ñu indil tey muy tolluwaayu ayu bis bi nga xam ni eh, li xew ci jamono laa koy tudde la indi maanaam ñu ngi koy gis lu bari muy tojum kër yi nga xam ni fi mu toll nii daal dafa mel ni loo xam ne xewit la dafa mel ni loo xam ni daal lu normal la léegi waaw mu yéeme lool nag ndax ay kër moom ku ko toj moom yaakaar naa lu rëy moo war a tax nga war koo mën a toj waaw ndax loo xam ni nit ki da ci nekk di ci kërti kërti ay at mu soog a yaakaar naa ku ko ñëw yàqal ko ko war ngaa teg lu leer ci loxoom waaye jamono jii moom dafa mel ni naan ni naan ndox lañ ko def waaw ni naan ndox lañ ko def waaw point bu njëkk bi ñu indil rek ñu mën cee jàngat ni xam nga makkaan moom ci képp ku koy ut fii ci àdduna ngir li la suñu borom suturaal moo tax nga bëgg suturaal sa bopp ndax ku ne xam na ni àdduna moom du kër waaye nag ci àdduna lañ nekk ginnaaw fi nga nekk ba mën a ñoo ñoŋal sa nekkuwaay ngir jaamu yàlla li tax yàlla indi la fi muy wa ma xalaxtul jinne wal insi illa li yabuduni nga xam ne jaamu yàlla képp moo ñu fi indi ci biir jaamu yàlla boobu nag dangay ngay def ndigalu yàlla yi bàyyi tere yi di liggéey di lu lew di ko lekk di dund sa njaboot law li ngay li ngay liggéey dund di ci ñoŋal sa diina di ci dundal sa njaboot bu ko defee looloo tax nit ki yàlla bind ko jox xel uutale kook bàyyi ma yi nga xam ne ci mbedd mi la ñuy nekk nga xam ni mën ngaa wax ni duñu am màkkan lu ñuy def ci mbedd mi nga koy lañ koy defee dangay dox di gis mala yi bu ñuy tuur ndox da leen di gis bu ñuy dem àll da leen di gis léeg-léeg sax bu ñuy sëy da leen di gis waaye nag yàlla fonk gum fonk nit wala xadd karam naa bani aadama teral googu mu ñu teral nag moo tax bim ñu wàccee jox ñu ay xel ba nga xam ni àdduna bi nga nekk danga fi ut màkkan goo xam ni fa ngay nekk di suturlu kër gi am ay néeg ami woon ak am ëtt nga xam ni bërëb bu ci nekk rek barabu suturlu la ci nit ki kon nga xam ni yàlla fonk na nit waaw ah, yàlla fonk na nit lool kon dafay mel ni sax képp koo xam ne amoo màkkaan fii ci àdduna daanaka li tubaab di woowe clochard moom ngay doon maanaam eh, koo xam ne amoo domicile fixe te loolu ku ne xam ne lu metti la léegi nag bu ko defee kon loolu boo setee mooy waral nit ki di wut màkkaan ñu tuddee ko kër léegi nag kër yooyu ginnaaw ci àdduna lañ nekk te àdduna yàlla jox na doomu aadama xel ba mu organisé wu du ko tëb rek mën a joxe suuf fu ñu mën a tabax dëkk fa maanaam ci quartier yi nit ñi di dëkk dafay am ay chef de quartier chef de quartier yi am ñu leen yilif mu toppoo noonu dem ba ci ki nga xam ne mooy président de la république léegi nag même bu fekkee chef de quartier yi ñu ngi fi képp koy jaay suuf xam nga courtier dina am waaw mooy yombal diggante bi ki moom suuf si dina am ni ko sëñ Mor waxee impôt et domaine dina am urbanisme bi dina am cadastre dina am nga xam ni suuf si loo ci bëgg a xam rek ci ñi ñu lim mën nañ la cee jox ay information kon xam nga du ko tëb rek jaay suuf du ko tëb rek du ko ci suuf waaw ndax organisation bi ci am nii moo tax bu ko defee nag léegi mu des ki nga xam ni kon da da da ngay jënd sa kër wala ngay jënd ab pàkk boo xam ne danga nga faa fas yéene def màkkan goo xam ne fa ngay suturloo yàgg sa njaboot bu li nga koy jëndee yembee muy xaalis bi kon li nga war a njëkk a def mooy informé wu maanaam ut ay xibaar yoo xam ne yu wóor la ci fi nga xam ni moom nga nar a dëkkee nar faa jënd kër nar faa dëkk benn ci muy loo xam foo xam ni fu wóor la waaw wóor na la ni fii joxe nañ ko ci anam yu leer te institution yi ñu ci tudd yi ñuy tudd sànq xaj na boo fa demee am information yooyu bi ci des itam mooy waxtaan di waxtaan lu baax la waaw di waxtaan ak say mbokk ndax léeg-léeg nëbbu bu dafay bari léeg-léeg da gis koo xam ne day bëgg fenn bëgg faa dëkki waaye nëbbutu bi muy nëbbutu du waxtaan ak xaritam du waxtaan ak soxnaam du waxtaan ak benn mbokkam boo xam ni dina ah man de bërëb sàngam bëgg naa fa nàngam noo ko gisee sottante xalaat dafa baax ci àdduna képp ku doyloo sa xal rek boo moytuwul di nga am lu metti xaj na boo waxtaan ak kenn xaj na mu am ci xam-xam boo xam ni yow amu ko ci loolu dafay baax léeg-léeg bi ci tege mooy itam nit ki bu amee information yooyu yëpp balaa muy tàmbali autorisation de construire da koy am balaa ngay tàmbali dangay dañ lay nag ah, may nañ la kayit buy wane ne may nañ la nga tabax fii waaw léegi kon nga xam ni maanaam jékki-jékki rek ñëw fekk benn àll nga dagg tabax dëkk yombul kon mbir yi dafay am fu mu jaar ba egsi fii bu jaaree fii ba egsi fii nag xam nga ni ñuy gisee ñuy toj seen kër nii yaakaar naa ne du nit ñoo xam ni eh, ñàkk ñoo xam dara kon am na mbir yu bari yu laxasi suuf euh, waaye boo ko seetloo ci kër yi ñu mujjee toj nii dafay mel ni dafay am arnaque boo xam ni maanaam politiciens yi ñu ngi koy def askan wi ndax dangay xool exemple bu mujj bi rek waa Mbourkat ci Thiès dafa mel ni ci wàllum parrainage bi lañ leen diggoon ñu gis même benn élément boo xam ni président de la république ci boppam moom lañ moo leen ne dal seen xel dinaa ko lijjanti mu mel ni dañ leen diggoon ni bu ngeen ñu voteelee ci pare parrainage yooyu dinañ lijjanti seen i kayit kon dañ leen a diggoon diggu di diggu élection ñoom nag ñu dalaloon seen xel kon lii wane ni mbir mi am na fu mu jaar ba egsi fi am na yu ci laxasu mooy yi mooy yi waaye nag kon xam nga dafay am complicité ak maire yi maire dëkk yi ndax rek. niñ koy gisee saa su ne bu ñu soxlaa wax askan wi loo xam ne digga yu tooy buñ ca paree ba am liñ bëgg mel ni pare xamatuñ leen ndax ku gis image yi gis nga boroom kër yoo xam ne day ndeysaan dañoo mujj jooy waaw dañoo mujj jooy ndax ñàkk pexe waaye foofu daf lay wonal ni rek euh, nekk jullit daal moo wóor ndax lépp dogal bu dal sa kaw rek di ko muñ muñloo yàlla day metti lool waaye di nga ko muñloo yàlla waaw di nga ko muñloo yàlla ndax yii bu doon yeneen dëkk di nga gis yeneen li ci tegatam mooy maanaam li ñuy wax succession des régimes maanaam nguur yi nga xam ni ñoo ñoo toftaloo di fi nekk dangay gis bu nguur gi ñëwee ak ay nitam digg leen jox leen fenn nguur ga ca tege bu gañe ko war a jël pouvoir bi da ngay gis day jekki-jekki mero ñooñu ñëw jaay leen doole jox ko ay nitam moom it fekk ñooñu tabaxan nañ fa ba pare mu ndax voté luñ ko mu mu mu ñëw jaay leen doole nangu ko jox leen ko waaw sëñ Mor joxe ni ci lu mel ni cité cité Tobago waaye itam am na comico bi nga xam ni yaa ngi gis militaire yi nga xam ne ñoo fa dëkkoon yàgg fa ak seen njaboot ñii dem ba retraité waaw ñii dem ba retraité ñii nekk mag. ñu jékki-jékki xëy bis ñëw ne leen da ngeen fiy génn xoolal ma lii ñii fan lañ jëm ak seen njaboot waaw fan lañ jëm ak seen njaboot ak fi nga xam ni fii rek lañ xam dëkk fa boobu ba léegi te service seen réew en tant que militaire service seen réew ba retraité ñu jékki-jékki benn régime ñëw ne la léegi da nga da fii génn yii dafa mel ni Sénégal da nga koy gis Afrique da ngay gis yi lii yëpp nag bu weesoo bu problème amee. ñun dafa am dëkk boo xam ni dëkk bu particulier muy Sénégal li ko def mooy dañoo am aada yu baax am diine am ay ay ay ay ay maanaam ethnie yoo xam ne dañoo dañoo booloo nekk benn gis nga kalante beeg yooyu waaye bu jafe-jafe amee waxtaan day waxtaan dayam am ndax yërmande dafa baax ci loo gis ndax askan bu néew doole boo ko yoree da ngay dugal yërmande boo ko deful rek mu si am ndax boo waxtaanul comme niñ def ñëw jekki-jekki toj ba mu yàgg nga ñëw ne léegi arrêté leen am na dogal bu jógee ci kaw nañu arrêté bañ lijjanti mbir yi waaye fi mu toll nii li nga yàq bari na ba noppi waaw góom bi moom am na ba noppi te def li muy jur mooy bari kon waxtaan da ko doon gën trouver solution balaa ngay yàq bu ko defee xat na ñi fa dëkk moom ba ba ba tabax fa dara ci suuf yi du ñu bañ ku leen jox feneen du ñu bañ ku leen dédommage waaye ñëw sëñ bi nit ki sonn ay at liggéey kër gi ñii liggéey nañ kër gi ba pare taxaw xool ñu koy màbb lu mettee ngo léegi nag yii dafay jur loo xam ni boo ñëwee def nit ki nii dafay jur loo xam ni dangay ngay tas yaakaaram ndax tas yaakaar weesuwul lii deuxièmement nga toroxal ko toroxal ko weesuwul fekk ko ba ci ku ne kam kii tabax këram bay yaakaar nga nga nga nga màbb njabootam nekk ci biti xale yu jigéen yi mu jur ak xale yu góor yëpp ñëkk nekk ci biti te li gën a yéeme mooy loolu bu ko defee léegi diggante boobu yow xalaat nga ñii fan lañ nar a dem dëkki ci diggante bi nga xam ne ñoo ngi lijjanti seeni mbir am na ñoo xam ne seen ay kër mbokk ñi mënta dem seeni kër mbokk seeni kër xarit waaye léegi bu dee ñëw jigéen nag fan lañ jëm xale yu jigéen yi saay-saay yi ci bitti di leen xaar ku am jafe-jafe yëpp dañ ciy profité bari nañu ci jaare jaar ci yoon boo xam ne yoon bu bon la banditisme dugg am nañu borom kër yoo xam ne sax dem nañ ci ba am jafe-jafe ak seen ay soxnañ ba mujj seeni sëy tas est-ce que yii ñu ngi mesure gravité bii nii maanaam fekk ñoo xam ne dañoo nekk seen dignité liggéey seen àdduna yépp ba jeexal nga def leen clochard ci benn bis désespoir bi dara gënu ko rëy ndax mënatoo liggéey xaalis ndax mage nga amatoo kàttan xel mi nekkatu fi yii yëpp daje ci ñu xëy benn bis tojal la sa kër lii bu fekk bu fekkee doo doo nit koo xam ne ku gëm yàlla nga mën ngaa doxe neneen waaw ndax bu fekkee réew yi tugal yi dangay gis rek maanaam góor ak jigéen boroom kër ak soxnaam bu ñu amee jafe-jafe dem tribunal maanaam ñu génne ko góor gi jox ku jigéen ki kër gi njëkkee ak ay doomam waaye da ngay gis tubaab bi lu muy def day dem uti pestole ñëw fekk ndaw si rey ko rey xale yi rey boppam pour wan la ne rek maanaam dafa am yenn mbir yoo xam ne gravité yi muy jur dafay yéeme te léeg-léeg duñ ci bàyyi xel ndax ñi ñu jiite li may wax rek yërmande yi ñu war a dawal seen askan lañ dawalul waaye nag dafa am lu yéeme loo xam ne war nañ koy xool fuñ toll seen digganteeg seen borom mi nga xam ni moo sàkk aadama doomu aadama teral ko yow ngay doomu aadama ni ñoom loo am am daraja doomu aadama képp nga ndax ëllëg suuf soos day xàmmewul président xàmmewul ministre xàmmewul kenn ñëpp a ciy demandoo bu ko defee nag doomu aadama yooyu nga fekk jaay leen doole maanaam sa sa sa sa sa sa pouvoir nga utiliser pour jaay leen doole loolu ak bew la ndax doole bu la ko yàlla joxee dangay nga yërëme waaw koo mënta yërëm rek xamal ni mënoo ko jiite bu dee mënoo yërëm nit ñi di jëlale xamal ni matoo njit waaw ñàkk yërmande moom ku ko def matoo njit waaw ndax askan wii ku leen di def nii rek kuy def nii sa askan rek doo jiital yërmande ak nu mu mënti demee nga jiital yërmande rek ndax noonu lañ bindoo suñu société noonu la bindoo te ku bew nag xam nga li lay xaar xam nga bu baax li lay xaar te li leen waroon mooy accompagner nit ñi. ginnaaw nit ñi maanaam dañuy dañuy am njaboot faw ñuy dagg ay suuf di joxe njaboot gi di yokk li waroon njiit yi mooy di accompagner nit ñi di xool yan solution la nit ki di amee tabax bu gaaw tabax këram waaw moo xam eh, loi yu muy def ba banque yi mën di jox nit ñi xaalis nga xam ne day yombal mbir yi bu baax a baax ndax fépp ci àdduna bu foo dem ñiy jënd kër ak ñëpp tëgg nañ ay loi yoo xam ni banques yeeg yooyu dañ lay lebal nga defar sa kër defar ni nga bëggee defaree boo demee nag xaj na ba am jafe-jafe ba mënoo fay dinañ xool solution sax ba jël kër gi su boobaa sa faute lay doon waaye doo ci gaañu doo ci gaañu waaye fekk kër màbb ko moom lii moom Sénégal ak Afrique rek la am senegal ak Afrique rek la am lii nag dafa am lu muy wane loo xam ne lu am solo la ci jamono yi. mooy lii daf lay wanal ni yàqu yàqook jikko yi jikko yi ñoo yàqu ndax bu fekkee nit ki yow dangay fekk nit ki tabax àddunaam yépp mu liggéey ko ba tabax sa biir xol bi amoo ci benn yërmande li ko dale décision ba jóge ca kaw jaar fi mu war a jaar ci ministre yeeg préfet yeeg mais ñëpp ba ñëw ci policier yi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ñuy toj ba ba ñëw ci euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ñoom la jox jumtuwaay yi ñuy toje kenn amu ci xol yërmande boo xam ni danga ne mën day sa sa sama xol mayuma lii waaw lii jaral na ma ma bàyyi lii waaye lii sama xol ma mayuma ko duma ko def nga xam ne xol yi ni ñu ni ñu woowee fi mu toll nii ci ñàkk gëm yàlla rek ci ñàkk bàyyi xel yàlla suñ borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo bind jaam yi ñàkk yërmande gi ndax mbir yi boo koy def boo ci àndut toog sa climatisé sa sa bureau bu neex climatisé nga ne eh, nañ leen dégër bi toj leen lépp waaw te bàyyi xel yi jafe-jafe yi mu mën a jur loolu lu yéeme la kon jikko yi ci boppam ñoo yàqu moo tax dara mënta defaru fi mu toll nii kon yàlla nañu yàlla dellu sutura bu baax waaye lu yéeme la loo xam ni lu am solo la lu mat a taxaw seddu la te war nañ cee bàyyi xel bu baax kon ñu ngi sant bu baax sëñ ture sëñ Mor li waxati émission bi am na solo lool am na solo lool yàlla na ñi ko war a dégg dégg ko te mu jaare fi doon solution pour ñëpp ñoo ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci jàngat yi di ñaanal ñëpp ñi nga xam ni ñooy liggéey ci bërëb bi yokkute ak xéewal te mu doon ay télévision rajo yu bari barke Cheikhul Khadim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf